Gaston production ci njiitalu Mbakan Mbeng ñoo wootee le 5 mars ci arène nationale Sa Thiès doomu Double soo mu Guédiawaye ci waa Guédiawaye bëgg yaakaar ko wóolu ko moom lañ jël nag mbokk yi daal di koy boole ak rëg-rëg doomu papakan doomu caaro yi xale bi déggagul muñal bu bëree rek mu neex moo tax mu ne ko Sa Thiès bu ñu bëree 10 combats ma daan la 10 yëpp te benn du ci bokk moroomam Sa Thiès ni ko rëg-rëg maa la mën aller ak retour du ma la sax xalaat combat bi la affiche point com dong ngeen ko mën a seetaane pour yéen ñi nekk ci diaspora bi waa bitim réew kon nag yëf yàngoo bu fekkee ni itamit da ngeen a nekk Sénégal bëgg a seetaan entrée mbëri xool kër mbëri nu mu demee à partir de 12 heures jàpp 22 heures maanaam 10 heures de direct seen affiche dong ngeen ko mën a am prévente yi 10 euros 99 boo bàyyee nag ba le premier mars dañ koy jaayee 15 euros 99 Gaston production ne jour ji tribune vert ak jaune 3000 francs la billet yi di jaay tribune rouge 6000 francs annexe loge loge 10 000 francs loge officielle 25 baa ngi noonu mbokk yi le 5 mars la arène nationale rëg-rëg Sa ñu ànd ci ak Gaston production mbokk yi tey ñu ngi fii ci Caaroy Géej fekk ci ki nga doomu Caaroy Géej la muy Reug Reug li ko waral moom mooy Gaston Xaali Mbeng moom moo woote Makan Xaali Mbeng moom moo woote bisu le mars bésu la 5 mars bis bu mag la ci wàllu làmb fële ci arène nationale diggante Reug mi nuyu seetaan nuyu ñoo ngi lay nuyu waaw maa leen di fay di wax auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu sante yàlla sama papa sama tante yàlla leen yàlla xaare àjjana firdaws ak mboolem jullit ñu fekk ak ñu leen fekk di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg loolu te wér di bëggee waa Thiaré Géej aw seen fay waaw maa ngi nuyu waa Thiaré Géej yëpp awma seen fay lu ko daggee tamit muy caalaan jonwaar ñor yool feu basaan basul ngajoor ah mar faafako mar sulu mar looj ah nangaan samb waa mbeela ngij waa gànjaay kaolack ah, waa jilaaseen waa jilaas aw seen fay waa faoy ah waa Joal Petite Côte bi ah, maa ngi nuyu ñëpp mu limee waa Palmarin ah, waa ñoo jor jon waate maa ngi leen di bu baax a baax di nuyu ñëpp fukki penc ñaar yi di nuyu sama sama papa yi fi nekk muy Khadim jaay ah Issa Pouy ah Baye Ma Ndione di nuyu mbëri caare géej yëpp moom li may damay juum ah ama dem di ñëpp ah waaw bala bala bay waaw moom sama papa la waaw di nuyu ñëpp daal mu li may damay ndax lamb coow boo mës am rek lamb ji moo ci ëpp coow lan moo waral loolu sa diggante ak Sa Thiès lan moo ci xew. non euh, lamb rek comme yeneen combat yi ñu ngi waaj ànd ak suñuy waaw ñu bis mënta rëy su ñun lamb la rek dañoo war a daje dañuy daje loolu la am mais du dara. mais ñu bëri gis ni Sa Thiès dafa yokk poids Sa Thiès dafa pare pour bëre te Sa Thiès keroog bu mu yokk poids ci la gën a mën a bëre dafa mbir mu mobile la est-ce que Reug Reug mi ngi sóoraale loolu waaw loolu yëpp dañuy bu bis ba rek incha allah li ma koy ñaanal maa ngi koy ñaanal jàmm di ko may di ko ñaanal gudd fan ba la cinq yi incha allah la cinq yi incha allah maa ngi maa ngi ñaan suñu borom may ñun ndam mais amul len lu ma koy wax moom na ñëw rek ñu bëri nañu jël favori bi favori bi jox ko ki nga xamante ni moom mooy Reug est ce que loolu mënu la naaguloo ci combat bi. non mënu ma naaguloo ndax man mbër laa mbër la du ma bëre mbër laa mbër. mbër nga doo bëri noo non loo bëgg wax foofu. non dama xam ne mbër laa rek loolu après incha allah les cinq ngeen i xam. kan mooy Reug Reug incha dañu gis Sa Thiès lu ëpp ci ay combat am. Hmm. adversaire am da bët jargandalu ak moom est que yaa ngi sóoraale loolu. waaw lu mu ñëw rek maa ngi koy lu mu lu mu indi tax sirib man aw ma problème boobu waaw xëy moom dama umpalu damaa umpalu wu si bëre mais incha allah la cinq incha allah dina euh, bu dee bu dee bu gisaatee rek dina ko capot baa ngi incha allah. rek rek bu ñu la nuyoo di lay ziar gis nañu mbooloo mu fi nekk yëpp kal mais rek rek gars yi nee nañ yow yaa ngi soog am combat nee combat yi doon am yëpp yaa ngi soog am combat yaa ngi soog am adversaire. mais Mac Elton nan la demoon. ma jël Elton gaa yëpp dañ ne manuma si moom dara. Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor. Gris 2 ma koy jël dañ ne man manuma si moom dara. waaw mu ngi noonu lamb la rek. lamb moo baax noonu. dem dañ ñaan yàlla suñu borom moo ñu ndam. mais mais ñaar ñooñu xale bi benn parce que yéen ay adversaire la bi combat jànk la. waaw combat jànk la. combat jànk la ba ñun waa ñaan ñu ngi wane waaj yëpp. di ñaan yàlla borom moo ñu ndam la seen incha allah. est-ce que yaa ngi sóoraale bëri bu gaaw waaw loolu yëpp amul problème na ñëw rek maa ngi koy xaar incha allah maa ngi koy xaar. Daalu Malibu waaw mooy li ma wax rek loolu tey laa ko gën a mën a wax. Hmm. Sa Thiès bu doon bëri dix combats. ma daan ko dis jële yoo xam ne bokkul ndax ma mental bi nekk bëri bi nekk fi newul si saa kees. nga ne lan. yaa ma expliqué. foo ko ma ñëw rek. gars yi dégloo leen. rëgg-rëgg mooy wax. foo ko teg dix combat. Ah. ma daan ko dix jële yoo xam ne bokkul ma boole ko si beneen beneen omoñ ak si biir. omoñ waaw. bu ñaabi bu ñaabi. ma tegal ko si beneen muy eleven. fan nga teg loolu. loolu foo ko teg loolu da bëre. gën kaa doon doole ëpp ko doole. non du ma ko xeeb ndax euh, man bu may bëgg yàlla jaasoo du ma ko xeeb làmb la non gaal gi du mu mari bu gaal gaal gi day ñëw la ne waaw ñaari doom laa nga yéene si ñaari doom laa nga doon xëy na la waaw ñoo waaw mais rendez-vous bi daal maa ngi wax dimanche incha allah di nuyu monsieur le maire mention spéciale ah Abo Fall Abo Fall aw ma sa fay. Ah, kan Barça aw ma sa fay gis naa ni Famoussa aw sa fay ah Badou sa fay ah, waa ASLM yëpp aw ma seen fay di nuyu Ali Ali Nar aw sa fay Ali New York ah, ah Tata Assouré ak Grand Alsan maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax gis naa dañ ci jàppee ni xaar ma ñëw taxawee gis nañ lépp luñ ci def waaw bis ba incha allah maa ngi waaw sant nga. yëg-yëg bi tey lan la. yëg sama rëg sama waay la sama xarit la sama doomu nday la ku ma xam-xam ni booy ñaa laa ànd ak mooy sama champion. mooy sama waay. laa dund lu ne. mais nag fii nga dëkk. fii laa dëkk. aussi tamit teew ma teew ni dama teewaaleel booy ñaa. Ah, ma teewaaleel booy ñaa. booy rëg la faral rëg ragal loolu. te ne. ñun ay doomu caaray lañ maa ngi gis nag ay fils de Balla nekk si kii bi ay këtt geen lañ. fils de Balla am na la nay wolu wa neex. non na droit faral ku ko neex. non boo yooyu dañoo mën a ñoddi loo xamante ceejawaay li ma leen di wax rek war na Serigne Bamba nee naa leen fu si làmb man ak yéen doo neex la làmb ñoom nappaate moo leen si dese te balaa ñu koo la cinq Reug dina jàpp Sa Thiès duma ko daan ko à suivre à suivre yow ayca Papa Ndiaye ñu ngi ak Momo ñu naan ko général li ñu naan rek moom moom doomu ñaay kenn du ko ñaanal rëy gudd fan lañ koy ñaanal ak wér gu yaram moom maa lu lay nuyu di la ziar. waa gannaaw bañ sant yàlla gannaaw bëgg a julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur maa ngi sama tante maa ngi waa senegal yëpp di nuyu bépp amateur di sant waa ak lu lamb yëpp di leen ñaanal jàmm te di ko sàkk si tey lan nga yëg tey. waa contentement rek parce que tey jii kii xam dafa di kenn ci man di sama frère di sama grand di sama lépp di sama genn wàll muy Omar Kane Reug Reug ñu koy ñaanal suñu borom mooy ko ndam lu sedd guy si barke Seydina Muhammad. Ah. tey nga tëgg fi waaw xam nga rek xam nga yow dafa am lu tubaab wax c'est l'expérience qui la différence waaw ñun ay xale lañ te chaque jour rek nit ki boo koy defal yéene tey suñu borom da siy jàpp. parce que ànd bu ànd buy dëggu lépp lu ngeen defal sa morom da nga koy defal koo xamante ne nii kii sori si yow la. loolu la rek mais du dara. Ah. sa xel dal na si combat bu baax a baax. billahi wallahi aw ma sa stress. aw ma sa benn pression. billahi wallahi. dégg naa ne mbër bu ko tëggkatam di tuusal day am lu muy sentir ci moom lan nga sentir si rek. waa lu rëy rëy parce que koo xamante avant nga kaa tëggal la nekk sa mbër man rek avant ma kaa tëggal la nekk sama moom it mu may bëggee avant ma kaa tëggal bu yàlla demee ba boole ma koy tëggal kon loolu noonu loolu sentiment yooyu noonu nit mënu ko sax wax rek ni ma mel ci moom barki Seydina mu xam ne ñaan naa yàlla bu demee ba am combat rek waxuma moom moo may fay man maa yëkkati sama alal def ko si combat bi ba pare ñëw tëggal ko barki Seydina mu xam parce que dund nañ lu mel noonu man ak moom ndax dañoo dépassé diggante cadre mbër ak tëggkat rek ay frère lañ saa yu ma ñëwee Dakar maa ngi gàlle saa yu ma nekkee gànjaay sax yaayam daf may woo bu dul dara sax man ñi mu tax ma xam rek man ñi mu tax ma xam caaro caaroy rek loolu rek doy na loolu rek man mënu ma ko fay connaissance bi tax ma am caaroy man caaroy billaahi fi ñu ma teg teguñ fa rek ñi nga xamante ne fa la dëkk barke Seydina Muhammad ba booy soldaaram yi billaahi wallaahi dañuy jàpp benn affaire man maa leen di ñaan ñu may ma lu bees li nga tëgal nu mu tudd waaw loolu mooy dundal te wër rek neex a faral dimanche daanal na ñi bi moo ñu ko tàmmal dundal te wër neex a faral dimanche daanal nit ñi bi yaa ñu ko tàmmal mais daan bi tam est-ce que dina yombe parce que dafa mel ni yéen xamoo leen xamoo leen kay xamuñ ko <laughs> waaye xam naa ne yow bu ko xam nga làmb Sathies moom aajuwul ay xam ko ak ñàkk kaa xam rek li ko war rek def na ko dañuy toog xaar yàlla def li muy def te xam naa ne incha allahu bu neexee yàlla suñ borom dina ànd ak ñun tata ku liggéey fayee ko c'est le travail qui paye gis ngeen Sathies gis ngeen Reug Reug li ci des ko bàyyi si loxoy yàlla rek ñi mu doon daan rek ñi muy daan ñoo gën a terrible Sathies fuuf fuuf fuuf xam ngeen si dara rek yàgg naa bëre. le 5 du yomb. le 5 di romb di yomb muk maa ngi gërëm nag soldats yi waa Caaroy Géej soldats yi rek yi ñoom Souleymane seen président Souleymane ñoom Diagane ñoom Ibrahima ñoom Pamoudou bàyyiwuma kenn ñoom Papa ñoom Bàcc soldats yi nga xamante ne ñoo jàpp si affaire ñoom Jonas ñoom Bayas ñu leen di contenté bu baax. mais nag bul fàtte bu ñu jógee le 5 le 12 lañ jëm. le 12 lañ jëm sama dëkk grand yow grand yow sa bés mënul yomb parce que yow man conseil yi may jox dafa doy bu ñu fii foofu la. looloo gën a dee. rendez-vous le 12. waaw le woo ñëpp dimanche di leen wax ne lii classement la woon rek film bi le 12 la. billaahi wallaahi ñooy yëngal ñooy jàpp ñooy daan incha allahu rabbi jërëjëf. Gaston production ci njiitalu Mbakan Mbeng ñoo wootee le 5 mars ci arène nationale Sa soo mu dubalee soo mu géejiwaay ci waa géejiwaay bëgg yaakaar ko wóolu ko moom lañ jël nag mbokk yi daal di koy boole ak rëg-rëg doomu papakan doomu caaro yi xale bi déggagul muñal bu bëree rek mu neex moo tax mu ne ko Sa bu ñu bëree 10 combat ma daan la 10 yëpp te benn du ci bokk moroomam Sa Thiès ni ko rëg-rëg maa la mën aller ak retour du ma la sax xalaat combat bi yi la affiche point com dong ngeen ko mën a seetaanee pour yéen ñi nekk ci diaspora bi waa bitim réew kon nag yëf yàngoo bu fekkee ni itamit da ngeen a nekk Sénégal bëgg a seetaan entrée mbëri xool kër mbëri nu mu demee à partir de 12 heures jàpp 22 heures maanaam 10 heures de direct seen affiche dong ngeen ko mën a am prévente yi 10 euros boo bàyyee nag ba le premier mars dañ koy jaayee 15 euros 99 Gaston production ne jour ji tribune vert ak jaune 3000 francs la billet yi di jaay tribune rouge 6000 francs loge 10 000 francs loge officielle 25 000 francs rendez-vous baa ngi noonu mbokk yi le 5 mars la arène nationale Reug Reug Sa Thiès ñu ànd ci ak Gaston Production